Euh, jërëjëf ñu delluwaat fii si Star TV Sport Bantaba euh, ak kii di Ama Kampo euh, ñu kontaan bu baax a baax a baax. Euh, gannaaw bu nga xam ne tey nag nañ xool lépp lu nga xam ne rek mooy umba si wàllum lii di tàggat yaram fii si biir lii dem euh, réew mi euh, comme ni ñu defoon last rek waxoon nañ dañ fu dellu si waat di same di same studio di same time tey nag dinañ waxtaanee lu nga xam ne rek mooy ligue bi dinañ xool ligue standing bi dinañ xool tamit match bi nga xam ne moo nekkoon di biggest match mooy diggante Royal di Banjul ak ñi di Brikama United xewoon foofu sa Brikama Euh, bu ñu bàyyeekoo foofu tamit rek dinañ xool Baboucar Steve ama Traoré euh, nekk ndaw lu nga xam ne nag score na ñaari goals euh, foofu si biir lii di ama Dubai benn tey bu ñu bàyyeekoo foofu tamit rek dinañ dem xool yi Euh, Gambian artists si ak Gambian footballers yi ñoom ñoo amoon match euh, bu nga xam ne rek euh, defoon nañ ko foofu sa ama Q City mu nekkoon charitable match bu nga xam ne organise nañ ko mu nekkoon lu nga xam ne was very successful buñ bàyyee ko foofu nag dinañ dem xool lu nga xam ne rek moo xew fii si biir lii di am réew mi mooy ñaari stade yu nga xam ne jamono bi ñuy wax ak am nañ lampa te nag ñu ko finance mooy ñi di Gambia football ama fédération Euh, ak lenn lu nga xam ne rek dinañ ko fi euh, indi fii si biir di ama studio bi am kii di ama kampo fii si biir lii di studio bi euh, si kanam tuuti rek dinañ am kam kii di Rohi Camara fii si biir lii di ama kër gi kampo ñu bàyyi la nga nuyu Star TV Sport Bantaba ñu ñu laa seetaan ah ko xam ne mu ñëw seetaan rek ah gis wala rek comme na ko waxee rek ah Star Star so the guys are stay tuned like never particular because come no go headline we, we have a lot of things to discuss and the show is going to be interesting so another stay tuned and never to uh, touch the dial alright uh, jërëjëf lu uh, nekka lu nga xam ne rek dinañ si kontaan jamono bu nga xam ne tamit rek gis nañ uh, three quarter Gambian players yi Euh, dellu su nañ fii si biir li dem euh, réew mi euh, di def seen ama holiday jamono bi si ay jëmmi kanam rek si next programme bi incha allah dinañ dem xooli seen training ground li ñu ko defee fii si biir li dem réew mi nu ñoo dundee ak seen holiday bi fii si biir li dem réew mi loolu dina nekk beneen programme bu nga xam ne rek dina ñëw si sport bantaba loolu next week la moo doon incha allah dinañ leen ko indi fii si biir li dem réew mi jamono bi rek pour leeral ndaw yi nga xam ne gis nañ leen xam nañ ne confirm nañ ne ñu ngi fii si biir li dem réew mi some of them ku mel ni ama ama euh, kii ndaa mooy ama capitaine bi vice capitaine euh, Omar Colley mu ngi si biir lii di ama réew mi euh, gis nañ fi ku mel ni kii di ama Moussa Baro gis nañ fi ñu Ibrahima Colley gis nañ fi ñoom Baboucar Mbaye ndaw ñi daanaka yëpp ñu fi ñoom Lamine Diallo Beck moom it dina war a egsi fii si biir lii di ama réew mi lu gën tey yàgga loolu nekk na lu nga xam ne rek dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax fii si biir lii di ko bàyyi xel ndig ndaa moom it am na beneen foundation bu nga xam ne charité bu nga xam ne mu ngi koo def gisoon nañ sax génnoon na joxe Euh, lu yàggut kenn man sali euh, moom it nekk na ndaw lu nga xam ne rek dina ànd ak lii di Star TV crew bi euh, dem nation waaye too si charité bu nga xam ne dinañ ko def ku mel ni kii di Lamine Diallo Bek moom it yëg nañ ne bu ñëwee incha allah fii si biir lii di ama réew mi moom it dina am fu nga xam ne dina ko dem fii si biir lii di ama réew mi pour rek dem joxe tamit moom it lu nga xam ne war na koo joxe fii si biir lii di ama réew mi kon kontaan la bu baax a baax gis ndaw yi dellu si biir réew mi di joxe lu nga xam ne amoon euh, jot nañ ko am fale fii sa bitim réew ñëw boole ko ak lii di am ak askani réew bi Kampo mu nekk ay very good move three quarter of the players bi ñu ngi yëngu si certain organisation ñeneen jamono bi euh, ku mel ni kii di am ak Kerman Sali waxtaan naa yow ne du gënta yaaga dina génna euh, oh. def ay nation waaye gis nañ tamit ku mel ni kii di Ndaa recently rek moom it gis nañ lu mu def gis nañ ku mel ni kii di Lamine waxtaan na ak moom si téléphone woon na ma ne bu ñëwee moom dina am fu mu dem si réew mi pour rek joxe lu nga xam ne rek ne ñooñu soxla nañ ko te ñu bëri ñi nga xam ne xamuñ seen whereabouts waatam ñu ngi ko def si biir réew mi. waaw ah, loolu c'est very very very good move la because a uh, uh, it's good soo nekkee uh, outside xam nga am something. dañu paak ko jox ko to the community. kon mm-hmm. ñoo ko nit. because of it's very difficult for Gambian players ñoom sax jaar nañ si mhm. because of very difficult pour nga am stocks pour nga am yeneen materials xam nga nga mun a euh, xam nga rek sa bopp pour nga mun a nga professionnel ñeneen tamit dunda mu ngi difficult si gaay mhm. kon Pamadou moo def ni dafaa dem jox ñeneen saaku maalo xam mu nga am daa foundation xam plus tamit euh, jox ñeneen ñaame pour seen euh, dundin mun a yomba mhm. so easy so nagu moom lépp moo ko rek defee tamit ne oda oda oda place yaa ngi ko def tamit indi si si oda si mhm. dem gis foo xam ne dee xam seen seen loxo mujut soo gars yi jox leen dara jox leen som kaas gars yi mën a dimbale seen boobu at least loolu daf laa mën a yokk tamit ëllëg bu soo fa soo ko defee tamit nga àndaa media bi nga vidéo ko soo demee nga won won ko ñu la ko jox ñu jote bi dañ lay gën a sawaraate ñu leen ne waaw kii lu nga ko jox dem na mu deliver ko so loolu dafaa gën a mun a ah, yokk sa foundation bi sa relationship bi with those people because it's good xam nga loo am rek nga isi ko back to Gambia mm, te soo ko mm. sànniloo ko sànniloo ko because of dina dimbale gars yi trop nekkut nekkut nekkut nekkut nekkut nekkut only food item sax. material item. garden living. bu ko gën a sola loolu la waaw ñu ko sampa si dex bi. day bi is good mm. bu ko sola soo ko amee sola loo amee la mën a jox ndox yeneen di ne la mën a jox laaj énergie bu ko spécialisé ob bi. light yeneen yeneen saa amul fii li courant foog solo la gars yi day use sa solo soo ko amee boobu alhamdulilah boobu di nga a am light di nga mën a charge sa mobile bi du du a use fii waaye di nga a taal tamit télé tamit so loolu tamit is good gars yi di ko nekko di def parce lii mooy dimbale gars yi tamit su gars yi nekkee fële ñooy seen ñaan tamit mooy dimbale gars yi tamit gars yi mën a am mun a am moo contrat mun a am lu bari because of his good nga jox ko because yoo kee mun la ko am hmm. mun la ko jeexal because ca beneen top players yoo xam ne ñoo ne ko Cristiano Ronaldo ñu ngi jël ay five hmm. million Cristiano Ronaldo joxe na five million Palestine ñu ne ay fifteen million ñu ne ay tamit am Zidane amoon fi fondation moom moo Ronaldo ba UN jox leen ambassade gars yi dem dimbale pook pook countries yi in in Africa and Asia ñoom Casillas ñoom Raul ñoom ah, Xavi Messi may may may may ay Bangladesh ay ñoom Myanmar seen lifi nii muslim lifi nii beneen ay xaalis pour gars yi mun a am seen bopp loolu yëpp is something so this thing is very good so lu ngay def ni ngay continuer te xam naa leen ñu bëri na nga ko def tamit bu ko soos loo lu ndaw loo am ni jokkoo ko lii comme dafa ñëw comme asakale rek mhm. because gaa yi gaa yi gaa yi lifin euh, gaa yi am soo mu ngi bëri soo na ngay jël génne tamit joxe génne tamit joxe da nga tamit yàlla dafa gën a jokkal gaa yi waaye nga amee nga noppalu tëju ko bu najjee benn bi sa doo amee yow sa doo am na nga amee soo is good la am ne always da remember kii moo def lii kii moo def lii hmm. te nañ ko ñaan te loolu hmm. dem ba faw so ñu ngi mën a good job lu ngay def nii good job yaa euh, jërëjëf thank you very much Kampo Bente rek euh, comme nu ko Kampo gaarale rek euh, Bente ñu jot tamit rek some information yi nga xam ne bàyyoo ko woon naa foofu si biir li di baara ñu jotoon ay lot of test messages yi through WhatsApp pour rek one players yi ne baara ñoom it nekk nañ ñu nga xam ne dañ soxla li di te nag jaar nañ ko si man pour ma jox ko tamit information pour players yi nga xam ne ñu ngi ñëw si euh, holiday bi pour ñu jàppale leen di gisoon nañ di sasa bu nga xam ne mooy xewoon foofu si biir di baara mu nekk ay youth yu nga xam ne dañ bàyyeekoon fii si biir réew mi dem bu dem bitim réew pour ut euh, ñëw fii si biir réew mi euh, yàlla nag def lu nga xam ne moom la soxla si ñooñu ba tax nag ñu bëri seen bakken des fa ñu bëri seen ay waajur teg fa seen alal pour gis ne ndaw yooyu dem jamono bi ñooñu nag ñu ngi sona ñoom nag ñooy sàkku ndimbal Euh, wane nag ne nañ leen di jëppale eggale euh, message bi si players yi euh, képp ku nga xam ne yaa ngi fii si biir lii dema réew mi jamono bi te nga nekk ay player ñoom ñu ngi sàkku ndimbal jamono bi du ñëpp ñoo sàkku waaye am na individuel ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg pour gis ne dinañ mun a jàppale lii di njaboot boobu noonu su lu munti doon jamono bi soxla nañ ko kon nag players yu nga xam ne ñu ngi fii si biir lii dema réew mi jamono bi bàyyi leen xel bu baax a baax ne baara Euh, jamono bi am euh, nañ ñu fax ne soxna lañ lii di am euh, ndibal kon nag ñëw ngeen si time bi ñu ngeen pour war a mun a dem mun leen a jox ñëpp waaye nag tamit boo leen demee dinañ identifier la ñu nga xam ne ñoom ñoo si gën a loru bu baax a baax ñëpp loru nañ si waaye am nañ ñu si gën a sona Euh, ñu jàppale leen euh, te nag ne message boobu moo nekkoon lu nga xam ne euh, dinañ ko fi gaaral te jaaral nañ ko fi te am nañ yaakaar ne yéen a ngi koy déglu te nag ne di ngeen si def seen ama um, warugal kon nag loolu moo nekkoon message bu nga xam ne rek jotoon nañ ko bàyyeekoo si som foofu si biir di baara pour jaalale ko si Gambian international ama players yi kon nag jamono bi mu ngi des si seen loxo am na player yu ma gaaral na nag ne ñoom incha allah dinañ dem foofu si biir di baara dinañ def luñ mun euh, ñuy ñaan ñeneen ñi nga xam ne nag waxtaanuñu ak ñoom ñoom it nañ def loolu euh, mun a dem dimbale lii di ama ndaw yi bu bàyyee ko foofu nañ dem xool li nga xam ne mooy xewoon foofu si biir lii di ama Brikama kampo euh, Brikama gisoon nañ Real de Banjul ak ñii di Brikama United ñoom ñoo doon play Real ñu njëkk a score ñaari goals unfortunately Brikama United bounce back from two goals down to two two mu nekkoon one of the best match so far si ligue bi foofu si biir lii di Brikama because gisoon nañ ne Euh, Real ñun ñu leen dóoroon si Super Cup bi. Mhm. war a demaat dóoraat ñu di Birkama si ligue bi dina nekk lu métti foofu si biir di Birkama tout not ba euh, tout tout campo si xam naa si kanam bi rek contrôle ñu dañu may euh, goal ñu gis ko nu mu fa demoon campo two goals to two two. waaw bi na ko di first time Birkama si ligue bi bu mu dooree en général ñoom ñoo teg ne leen dana mën two two two bon yow Real di Banjul xamal leen bu ko soob title euh, rival leen. bu mhm. ko soob Real ma Real mu ngi doonoon gars yi si super euh, super coupe one nil parce que ñoom ñoo doon tamit Real di Banjul one not seen win boobu moom leen moo leen dimbale ba gars yi dem win à ligue gars yi egg si kaw Real Real di Banjul huit waa one point so game bi itself it was a very tense ah tense game bi fees na tep Real Real di Banjul started very very well but Brikama ñoo amoon chance si bari si force ak yooyu. waaw mën nañu ne Brikama ñëpp li dee. waaw. mënuñ ko police capital élève kon hmm. ba afta bu real ma Banjul euh, real hmm. bay Banjul eh, si biir game eh, si game bi la si hmm. si tati minutes yi dem ba tati five minutes yi balaa ñoo dem brique rek real di Banjul war a ko ñaari kuy waaw kuy te te am ne c'est di rafet góol ñoom tamit balaa nga dem brique they have to pull out one again mu nekk à two one but since since that they keep putum Real di bañ di di presse. waaw bu dee mën nañu may góol si rek ñu xoolaale ko waaye Scampo lay sal match boobu waxee woon foofu sa biir mu ne ko di presse presse presse man dama blame leen si à tactique bi jara jara time boobu yaa ngi tuwan daan tempo baa ngi high time boobu unité bi moo defensive à place nga mun a win game bi waaw nga tamit after moom dafa génne euh, dafa génne midfielder bi mhm. mu isi euh, Ibu Touré te Ibu Touré xam ne offensive player la at Abdoulaye Ba mooy bekk mu defense game bi six mu mun a caaj boo bu génnee bi dafa expose so da ngaa léegi gars yi nga am pression pression boobu leen leen ni bi def seen tout changes gars si Domingo Mané rek pression bi gën a nekk si kaw réel ba ñu am seen loolu nekkatul góol si Brikama waaw loolu nekk uh, war a ñëw score ñu it am tout góol tout góol rek score rek war a put pression again pour pour moo pression seen ko tuuti gars yi win nekk tëri góol but game bi nonetheless scanning points yi xam nga. tamit Kabo euh, Brikama euh, Real concede very cheap goals. very cheap goals because all the first goal was very cheap. first goal bi saa yi moo war a téye pour que Selevi bi la nekk deuxième mistake bi la defoon si euh, against Cap Vert si Waafur à Ptolemaios dafa dem war a téye téye bool. waaw ndax li ñu faxoon ñu fa la faxoon nekk fa. non bii moom faxoon faxoon mu fa woon ba nga procédé. Hmm. boobu saa boobu saa moo ko score Domingo moo ko score am cross la mu jël pour poussaale ko rek waaw moom. kickball moom faanut waaw keneen luñu le bu booy rek a faan boo danga det brigama soo fappile referee personnel ngi xeet te gars neen penalty boo xam ne clair bi def ko ignore moom foo mu ne goal so lay ne ko goal hmm. bon nekk rek game hmm. Hmm. best game so far this season brigama régal di bàñun always du nekk game bu ndaw te brigama dem fa comme gaa yi wala ese solatone senta fo fo fo ultime so durga sax di nga play di nga di nga play with pressure because of easy ñoom sax dañ dee play with pressure so naka na a eh, eh, fair game la both side both side deserve to have a point. Mm-hmm. Yeah. Uh, si biir lii di am uh, Brikama uh, diggante Real di Banjul football club ak ñii di Brikama United tuuti la woon foofu si am ba tax na jamono bi rek ligue bi dina resume January on the fourth dinañ gis ligue bi dina resume fii si biir lii di am réew mi dinañ leen jox tamit rek some information si lu dem si lu mel am noonu waaye benn tey rek. dinañ xool ñi nga xam ne rek ñoom ñoo topp agum lii di ama GFF ama league ama standing bi euh, fii si biir lii di ama euh, réew mi euh, jamono bu nga xam ne nag gis nañ lu nga xam ne moo xew gaaf ñoom ñoo tobagu bi seven points Hawks second with six points Gamtel ñoom ñoo nekk third with ama six points Real de Banjul fourth with fifth fourth Brikama United fifth fifth points ñoom it jamono bi waa Banjul six five points Wally daan seven five points Kampo it seems league bi is very tight because soo xool tamit four points four points ten Tanling United four points eleven United four points GPA with one point BK Milan thirteen zero points. Marimo 14 zero this year du ma supérieur de de sa petite team mooy Marimo. Marimo bi Milan Marimo waaw bi Milan Milan. first three game nga lose ko in in a row it's not good euh, for them in a division te lii mun naa count by because of hmm. right now possible nine point zero zero point so it's it's better Marimo seen na sa ñaari euh, game waaw day definitely the team something. Hmm. Big Milan I don't know what their problem. they have, the best coach uh, hmm. uh, uh, in the league. Long week speak for yourself. so ñoom ñaar I can I can understand they struggle ports we understand seen team bi gaa ko ciiñ. den ci lu bëri amee ñu coach mu si player players waaw moom tamit dafa dafa génne experience players yu bëri mu si ay xale yi I I think he need to have some experience players gaa yi mën a dimbale xale yi gaaf yeah, expect them to do wonders alongside still, well, still, still like the same I do uh, well, game. Second game, the game with, with, one man down. Guy mm. Dour guy one goes in the top league with seven points, uh, followed followed by uh, I think uh, Gamta. Uh, Hawks were second, six Hawks points. Second, Gamta six, six points. Gamta them six I think for the fact that one one point Monica Sassoon. Yeah, Real four with five point, mm -hmm. Wiley than five point. Mm-hmm. Ngam uh, feed the fortune. Ngam them yeah, four points. Surprisingly, come for um, nyari team new US moy Wabanjul. Wabanjul. At United. Wabanjul five points. yet to concede goal. ñoom ñoo ñoom ñoo waaye daal la ko considéré góol. so far si si Madrid Tatris. Madrid Tatris mu demee so ñoom ñu ngi score with five five five point noonu la league bi is very young right now you cannot predict it but a team to be xam nga ñuy compete. waaw fii fii na fi na si bokk am foofu na si bokk Real di bañ na si bokk Brikama si da ngaa tere nga target ah, comme mel ni comme PSV wi li nga ñëw nga bu ko xasulaa ak big big big team ko expérience la si ligue bi yëpp ñu ngi élite yaa yaa respect team mm. am am target target boo xam ne mooy xam nga dafa mun a dafa mun a stay boppam si division bi Sokone Rambaye su amee chance pour win league na dem ba the main objective for this season is to stay te waa Banjul tamit seen ambition loolu la ñu ñëwoon pour compete dañ ñëw pour am point pour stay si division because second division dafa métti mbay. ok bu ko waxee tamit sa fans yi every player bëggut relegate dafa bëgg qualified ay ca always qualified la di bëgg a so su winu bi ñaari gëm ah, hmm. dafa hmm. Hmm. ñoom na guys am target boo xam ne dañoo mën a téye seen boppa si si si ligue but still now the big boys are going to compete it mooy armed forces uh, Real de Banjul Brigame United ak Hawks. ok ñoom ñooy compete pour ligue bi. voilà dis dis. alright thank you very much loolu mooy uh, GFF ama league uh, division ama one standing bi fii si biir di ama réew mi dinañ si gën a indi yaatal dinañ si gën a waxtaan xool fan la ligue bi di war a mujjee waaye nag bu ñu bàyyi ko foofu rek nañu xool yi ama Steve Tarawale. Euh, Steve recently euh, mu make headlines euh, foofu sa ama clubam bi recently gis nañ Steve score ñaari goals yu nga xam ne rek score na ko moom mii di Steve although ñoom seen ligue bi amul break because mm-hmm. bokkuñ ci Christmas bi mm-hmm. waaye ñu gis Steve di score very good goals ndax duñu wane ne xëy na Steve dina génni foofu in the future mais ñu ñu sign ko ñu ñu sign ko because in the future definitely war naa gën a war naa mën a gën Issa Mbaye mu mun a dem ci Europe because still na sa sa young player mun na faa delluwaati right na bu nekkoon Saudi Arabia nekku di play woon hmm. régulier bo boso ñu coach bu ñëwee seen coach bu ko saynoon ko foo dem play fekk on play am du ko dee mu frustrate so moo dem loan in Dubai foofu hmm. so bu mu score bi bi his five goals bu bu scoreel no club bi so he's scoring amazing goal but right now man I'm, I'm, I'm expecting that team to sign ko from Saudi uh, Saudi Arabia but the best thing and the best advice man daal lu ma ko advice always like na try uh, mu ne although xam lu mu lu mu am Asia middle middle east bi du ko mën a am Europe. mooy in term of finance in term of ñu ko fay yeneen team in Europe. ñu ko ko fay du ko ko fay. ok xam nga soo na try rek uh, mu try mu play in mu test European football compiatul ko juróomi fois ñu ko nag compia huit à after mu ko fii def na fa nii indi deux su fa ñëwee sil bi de China wala Saudi Arabia la Dubai wu mbaa Qatar mbaa UAE fu nekk dina fa mën a appelé for right now music pick up his uh, form mbaa still dem free transfer but I think his agent bi moo ko war a dimbale léegi yóbbu ko uh, top team in Europe mbaa even semi professional league sax in the future kon moo ko welee mun naa hmm. hmm. dellusi bu baax because nekk na fi nim already alright uh, kooku mooy Babacar Steve ama taxawale suñu nga xam ne jamono bi uh, def na ko uh, benn rek bu ñu bàyyee ko foofu nag nañ dem xool yi leneen lu nga xam ne rek na si biir li dem réew mi mooy ama frotlay su nga xam ne rek gis nañ Gambia Football Federation ko ba balaa ñu ñëw jeexale suñu programme bi nag si ama charité match bi nga xam ne sa kiw la ñu jeexale lii di ama programme bi rek tuuti rek am boo ñu xool lu nga stadium Serekunda is mini euh, mini stadium bi euh, GFF euh, dige woon ne dinañ def almost packs yëpp nañ ko def light mhm. pour ñu mën a play match guddi recently nag light yi ubbi nañ ko moo nekk nii lu nga xam ne gisoon nañ ko ñu ne test nañ ko ba gis ne match dina mun a am guddi comme fam nañ ne dina mun a am loolu nekk lu nga xam ne la rafet rafetlu la mhm. jamono bi ñaari paak nañu amagu mooy Banjul ak Serekunda West xam nañ ne Brikama ak Serekunda East Euh, ñu yëpp dinañ bénéfice ak ñoom ma njaay good move pour football. non good move lii la bu ko ligue bi dafa rappelé tamit guddi bu ko soob daytime bi mu am po po atteindre bu ko ñu bëri ñu ngi dem liggéey xam nga euh, four o'clock five o'clock tëb tëb daf lay ak European games yi. Mhm. loolu daf lay euh, soo demee ay Sénégal ak yeneen. waaw guddi la guddi guddi la ah. replay mhm. Sénégal yeneen dañu am ñaari match parce que guddi da nga xam ne fa play six o'clock beneen beneen play good da nga xam ne lii danga dem liggéey. nga wàcca boori foo nga dema relax kiir ba six a développé lu a ah, rafet bu ah, ko sob laajte moom mu ngi lañ la comme comme suba grand mm-hmm. fii fii mu ngi wee ngi ñuul fii bu ko sob baax na bi ah, ñorul ba léegi jeex na takk Bañoon tamit gis na tamit seen boss ñu ngi ko taal mu ngi set wet. soo léegi. waaw Bañoon tamit dañu war a dimbale si seen activité taf bi. taf bi waaw non boo ko dafa expert wala boo ko boo ko njëkk a ñëw dan brigade seen brigade seen boss moo gën a ñu brigade seen boss dafa xaw a week waaw boobu dafa différent ak bu Bañoon waaye ren nag Bañoon seen boss da nga ko war a teyaati ISRA dafa ñëw ñoom seen boss amul job bu dodote. da ngaa buddi la nga teyaati waaw wala lépp lu war a def absolutely so yeah, i think the gambia football federation war nañu na congratulate uh, Bubasa, Bubasa. because Euh, to be honest with you si bu ñëwee euh, gis nañ adjustment yi nga xam ne adjust nañ ko sport bi euh, jamono bi si fine si wan when it come to ama um, adjust li li price bi génne li ama um, registration bi di try tamit park yi nga xam ne moomuñ ko because park yi community baa ko moom mm. mm. park yi community bi la goal projet lañ moom because soo xoolee Serekunda West is under the KMC East is under KMC Brikama is under Brikama Manjaay waaye bu fekkee nañ am na feneen fu mu war a jaar subvention bi ñëw am na feneen fu mu war a dugal because subvention bi nekkul pour lii la ko FIFA indi mm-hmm. waaye gis nañ ne try nañ dem nañ ba gis FIFA wane nañ ne it's high time tamit ñun dimbale ñu pour ñu mën a développe lii di parcs because parcs suñ ko développe suñ amul parc yu correct suñ football yi dem fenn because li ñoo di so football yëpp mooy ne amul ground bu baax ko soo xoolee Gambia suñu waree play fii eh, CAF championship bi suñu ñëwee fii daf ñu dee disturb fii si ñu ñëwee fii Casablanca di play against stade lu ñu njëkk a mooy seen stade yi baaxut eh, ñun a complain ne eh, stade bi seen ground bi baaxut gis nañ na Brikama bu ñu demee biir Morocco gis nañu leneen loo xam ne mosuñ ko. waaw foo foo la ñu gars yi dóor because of ko ko defoo au lieu suñu ground war a baax. so ci sa ground su bàyyil lii léeg-léeg comme exemple que lu tax Sénégal seen play bi léegi mu gën gën ñu léegi. seen seen ground. bi dafa dafa good ground. dafa good ground artificiel la kay jàkkaar parce que am na ay Bahama ba seen benn Bahama fan la Stack lak Dior la ak seen. Mm. tubaab mm. tubaab de la gaa amee bi amee naka sa grâce bi amee léegi dinaa soo fu tamit amee grâce am ak artificiel soo seen fil dafa baax fil su bàyyee da nga tax di bes. di nga xamante ni bés. bool dafa war a daw bool dafa daw di nga mën a capat teneen di nga mën a dimbale sa boppam waaw grand bi su baawut definitely you cannot see the best out of the player. so dafa weak so def def na ñu ngi try absolutely because mun gam na jahat gram because du seen fiil waaye ñu ngi force try pour change everything light is very is very very very important because léegi mën nañu am big game saa bi mën nañu ko play guddi boo xam ne ñëpp nañ ñu seetaan ko mu fees tep exemple comme comme yeneen dëkk yi nu mel but ground si definitely they have to help te comme bi su su jeexee ne mu ko teg yaa very very very because fii la suñu football mën a développé su ground bi baaxee rek everything will be okay ok right euh, li ñuy def rek mooy ñu ngi def very short commercial break euh, dellu si waat fii si Star TV Sport Bantaba euh, ñu jeexalee programme bi nag si ama Gambian players versus Gambians ama rappers fii si biir lii di ama réew mi ñu xoolaale rek vidéos yooyu noonu ba balaa ñëw dellu si waat fii si biir lii di ama studio bi fii si Star FM Star TV Sport Bantaba. old and retired are doing something in communities. I am aware. Sometimes some of them would not have it covered or reported by the media. But some of us are aware and we have to appreciate it, keep it up. Boy. It is the fans that... maa la gisoon TV de. maa la gisoon TV non dama la gis gis naa la TV. All right. Euh, jërëjëf ñu dellu si waat fii si Star TV Sport Bantaba jamono bu nga xam ne xool nañ image yu nga xam ne mu bàyyeekoon foofu sa Q City euh, rafetlu bu baax nga xam ne rek gis nañ ne ama Gambian players yi euh, def ko ak ñi di Gambian artistes yi fii si biir lii di ama réew mi ñu gis gisoon fa ñu mel ni ñoom ama gisul ñoom ST ñoom Barxama ñoom Attack ñëpp nekkoon fa Lord Mayor si boppam KMC Talib Ahmed Ben Souda moom it mu ngi si bés boobu noonu gisoon nañ fa ñu bëri ñoom Sol Fraser ñu fa woon ñoom nga xam ne bés bu rëy la woon euh, si football euh, fii si biir euh, réew mi comme ni ko artistes yi waxee rek yaakaar nañ ne lii nekk na ay new chapter bu nga xam ne ubbi nañ ko te nag ne dinañ ko far di continuer fii si biir li dem réew mi di fa amee yëpp mooy dañoo far di ko jox back to the community so foog naa ne loolu is a very good move lu nga xam ne def nañ ko campagne fa woon roxi am camara mu fa woon mu nekkoon bés bu nga xam ne bés bu rafetoon la Euh, si football yi ama ak Gambia euh, ñu rafetlu ko bu baax a baax artiste si nag ñu foogoon ne dinañ leen basket waaye unfortunately euh, mujjoo ta demee noonu tra nañ bu baax a baax score nañ five goals against ñi di Gambian players yi Ous Diallo former Gambian striker Zadel moom it mu ngi fa woon Ken Mansali mu ngi fa woon foog naa ne daal players yi mu ngi ko doon ñëw ñi nga xam ne xëy na ñu ngi play ñoom Steve Lawal ñoom Moussa ñoom Baro ñi nga xam ne moom it dinañ ko congrat Euh, ndig euh, jabaram dafa am li di ama euh, doom kon nañu congrats ko bu baax a baax a baax moom mi di ama Modou ama Seka ama Baro Gambian player foofu si biir Turquie Kampo mu nekkoon very good initiative bi nga xam ne rek gis nañ ne ñambaay mooy campé bi ak Ibrahima Sona ñoom ñoo try pour gis ne lii nekk na lu nga xam ne dina am après kala nga la moo nekk indi Gambie every only 24 all players ak all rappers yi dinañ min di ñëw te nag gis nañ ne this was a testing gis nañ ne outcome bi was very good for very successful so seen éli mooy yóbbu ko si stade bi fesal li stade bi xaalis bi mu fa am yëpp ñu ponk ko back to the community. waaw is a very good initiative because this is the first time uh, muy happen te li is good to bring the crowd the two uh, naka the two parties to. Uh, deuxième umbrella bu ko sawa Gambien artistes yi ñi leen am ñi ñoo suñu artistes yi ñi leen dee namoo plaisir plaisir am leen ñu ko seen ñu génne ko amul benn différence ñu mu neen waaye easy pour am nañu yëpp ñu easy ñoom dañ dee seetaan suñu place tamit suñu place tamit tamit dañ seen musique bi dañ dee gis soo gars war a ñu dajee nekka nekkat benn game bi is not even suñu ñu nee fii dara suñu bés the best thing is not about even winning comme Aziz Ba win ba président the best thing bi mooy collaboration bi mhm. ak proximité waaw xaalis bu gars di am foofu dem dimbale the community. Mhm. Because the charity match, even in Europe, that's what happen. Tangachapa the Cristiano Ronaldo at the 11 guy organized a match, kii pick team kii pick team up xaalis bu ngay am ngay dimbale UN nga ba ngay dimbale yeneen disaster so loolu tamit c'est very good initiative ba loo xam ne. Euh, idea bi Ishon ak campagne bi bi ngay def is very good lii moom is unity lii dafa over enjoyable because of ñoom sax moom sax donc enjoy te dafa nekk ko mhm. waxee dafa mhm. continuer dafa team mhm. bii for the first time la xëy na for the second time bi du mun a hit kiw city mu ñu mun ko yóbbu stade maa yóbbu si mu fees tep xam ne ñëpp mun a enjoy ñëpp seetaan si xaalis mu am yóbbu ko di communauté lii is very good is enjoyable te fa attaque big faa big faa big faa su ko ko kongu bu ngay jooy ji ji ji di ko force dam da ko góol olu gars leen baalal moom nag voilà da leen da leen baalal bu ko ten minutes four goals against score score after gars yi may leen gars yi ñaari goals after gars yi score after am na bal game bi sax xam nga eight four waaye ñoom ñoo yokk si seen benn ñu ne bàyyi eight five la so it's a very good thing loo xam ne phone am na fa but the most important thing la ko ay te game bi it's all about charity game pour dimbale community bi it's very nice ca ba war a ca ba ñoom attaque ñoom jiyee naka jisul st Barham Mastala no no Barham former player ak ñoom Ignacy ba Barham sama sama naa ma ne ko lu jànga bàyyi lifini ma xay xëy yàlla foofu la ko lifini but he is a very good player so mu am yee bo even projet ni nga ne suma raka yow war ngaa mën a continuer football he is a very fine player waaw bu ko pour na ko sa. émission bi tamit tànn ah. non juste juste ah daf doon plé waaw léegi xam nga léegi ba ko waxee ne ko waaw léegi xam naa ne mënaatul léegi <laughs> waaw traité bu bu neexee score moom nag baag baag flic bi moom. waaw est ce que est ce na waaye. est ce na moom la <laughs> mu toogaat ne ko fitness bi nekkul fa. <laughs> Big Fast Score. Big Fast Score waaw boo tamit gis naa mu score celebrate film bi yëpp du ma dafa dugg foo sax mu toog moo sax daf lay dem. offside moom gars yi ko def football moom offside moom daal dafa nekk woon ko. waaw li ci gën a euh, la ngay waaw after waaw bu ñu jiyee bu ñu gisee tamit de dugal sixteen players sixteen players bi sax boobaa sax ñu ngi yëpp players gars yi gars yi loolu bu nga ko wax gars yi loolu bu nga after sixteen players la waaw fifteen la ak góolam bi. sixteen waaw sixteen players waaw eleven players. <laughs> eleven players donc war a bàyyi noonu soo ko bàyyi noonu sax dafa gën a naxaree gars nag waaw da nga win but it's always a very good institution te lii dafa nekk ak ak ñëwaltin loo xam ne mm, mm. dafa continuer te ay noo di all private sector bi nañ ñëw pour sponsor ko because bi yoon ku si bokkutoon waaw di si da si bokk a bokk sa loo am daal ak sa product is a very good. is a very compagnie su nga xam ne bokk nañ si. beneen uh, compagnie am na si uh, so foog naa ne high time ñu ñu war a wone seen boppa uh, di dugal di a xam ne. xale yaa bu baax a baax a baax si compétition bi. so war na ne is high time ñu ñu door di you lu nga xam ne. am nañ ko fii si biir di dama réew yi euh, rox yaa ngi woon foofu noonu euh, gisoon nga event bi nu mu demee was very successful euh, ambiance amoon na fa entertainment amoon na fa so yaakaar naa ne li nekk na lu nga xam ne lu war di soxal lii réew la because réew nekkul rek dañu war a noppi am suñ ay stress di toog foog naa ne yii yëpp nekk na yu nga xam ne yeneen réew yi fii leen réew yi réew yi Gambia because mm-hmm, mm-hmm. si feeti Christmas yi nii ak ak feeti um, Tubaski ak dañ ko def waaye ñun fii gën see doole amuñ fu ñu ko defee nga xamante ni gaa même place yoo xamante ni ku ku nekk comme ça ñoom Ousse Diallo ñoom Kër Mansali man man man ay personnel moo xamante ne gis naa gis gars yi depuis hmm. gars yi ñu gëj fi Gambie yàgg na trop comme ñu football a Gambie waaye gis nañ ne kër gars dañ ñëw taka seen daala dugg si biir pij ñu pile ñu am foon et seen fans ñëwoon ne support leen tamit di seen tim crowd bi feesoon na trop nga xamante ne waa artiste tamit ñu ngi leen wax ne gars dañu dégg gars yi tuuti na bi pa mu ko xam dëkk sa micro mu ne ma nii man damaa dóor gars yi tuuti na and unfortunately ñoom ñoo ko ñoo toll ñu <laughs> dóor gars yi eight five and eight followers gars ñu ne eight five léegi ñu may leen benn góor mu nekk eight frère et bu fa gis nañ mu play benn tamit mu soona mu génn si mu dugal second half léegi xam NFM mu score goal mu xam gis nañ ji mu score loo xamante ne kenn foofu ko woon artiste comme dina mun a am five goal foofu noonu waaw ñu gisul ñu mu ne moo nekk Messi waaw mm. mu score mu ne moo nekk Messi man mu ko jàppee moo nekk si Gambie si pro yi moo nekk Badou kooku kooku bu ñu duggee wax na ne moom. waaw dem naa yëg mu mu déggee mu. loolu la nga xamante ne moom. waaw Moussa na te moo tamit léegi si ah fi day génn dina ticket mu ñëw play. loolu la ñu dafa jógee direct di mm, nekk na benn loo xamante ne xaalis bi nga xamante ne ko amee dañ ko dugal si biir réew comme néew doole wala xamante ni gars si ko méeg nekk na loo xamante ne daal gis nga bëri sax suuf man man affaire naa ko a baax ne doomu réew mi ñuy kas am Christmas ñu am jooy ñu am foon and after loolu yëpp mujjee ñu nekk together te li football rek moo ko mun doo dem si yeneen lii all sport nga gis lu mel nii mhm, mhm. waaye li football moo moo mun a ànd unité moo mun a ànd oneness te gis nañ ko aada si ñu am ñoomee daf ne bifante gis nga bis boobu noonu dañ nekk benn kon ko xamante ni kii kii ak kii dañ dee am bif gisu ko foofu noonu bu ko football rek moo mun a àndi loo xamante ni kenn musu mënu koo def tam right uh, thank you very much uh, loolu nekkoon lu xam ne ñu rafetlu la Euh, fu ñu tàggatoo rek mooy ama Euh, sa waa ji Torres euh, takk na jabar lu yaagut mm-hmm. ah, ñu congrats ko bu baax a baax euh, moom mi di Torres foofu si biir li di Banjul dinañ ko seeti dinañ ko seeti si programme bi xool moom mi di ama Torres ak famille bi ah. loolu nekk nga xam ne rafet la dinañ xool place yëpp balaa ñoo ñu ko paree defee fii si na ko xool bu baax a baax Ibrahima Koli moo win di best foreign player lu xam ne moo Gambia sport news ñoom ñoo ko dee ama vote ñoom buba fele booy euh, ñu rafetlu ko bu baax a baax moom Ibrahima Koli mu nekk di best foreign player waaw mu nekk best bu ko di saf na ko bu kaa jamono last season lu euh, lu lu perform ah, si bu nga ko defee so def na de deserve na pour nekk di young player because of mu ngi mu ngi wenu to score amazing goals mhm. help na team bi guy play final against Lazio guy win uh, cup bi so this year tamit promote ko ti uh, to the first team in the in the, A so this am na pour nekk youngest player bu ko right now moo di youngest player ba am ne hmm. mu ngeen def wonders uh, across euh, Europe right now right i booy ñu xam ne Ibrahima Koli best um, uh, foreign player dinañ ko dem jëli waxtaan ak moom euh, ak certificat am bi ñu rafetlu ko bu baax a baax lu bu ba fele booy euh, moom it si liggéey bi moo def euh, pour rek gis ne dinañ mun a bàyyi xel bu baax a baax lii di ama Gambian players yi Euh, Iboy best foreign best player. waaw mais waxoon naa ko la bi bu ma toogee fii nii comme ça Iboy lépp lu mu bind ci football daf ko di saam ne na euh, comme duggee si bi daf doon mun a capitaliser mu score. Mhm. toujours tiri goal la doon mun a score. wala yenn saa am fi gars yi daf doon ko si bañ mu dugal mu mu dimbale gars yi foofu noonu et mu win léegi fi xam di foreign best player boo xamante ni mhm. win na ko on Saturday. tam daf ko di saab te man ma affiché naa te loo xamante ne dafa yokk a booy jom sax comme eh, ku nekk mu si gàllankoor football bi dafa mm-hmm. am mu décoré ma waaw ko euh, defee waaw si Iboy mu ko defee mm, foofu Gambian ak Gambian players waaw Gambian mm. mu nekk first time sax ñu def ko Iboy tam mu jël loolu noonu si Gambian si mu nekk na loo xamante ni ñu ko big congrats te mu continue hard working bi rek moo soog seen affaire All right, uh, thank you very much. Congrats, uh, uh, ko gën a waxee rek gën la fas jom uh, dinañ gis daal euh, keneen euh, Ibooy euh, in the next two years di nga nekk beneen player bu nga xam ne euh, ñun ñëpp dinañ ko ndamoo euh, fii si biir lii dem réew mi euh, naam ne sax def nga ko already waaye rek ñu bëgg gis ne nga gën a pousse gën a mun a dem fu nga xam ne fa lañ la gën a soxlee si football fii si biir lii dem réew mi jamono boo xam ne nag Gambie ñoom ñoo topp lii di ama groupe bi groupe bi benn tey ñoom ñoo ko topp ba next year loolu léegi nekk na baax ne si player si jamono bi kampo for the first time Gambie war a topp groupe beeg match ba ba August kay. ah ba August August loolu loolu nee na c'est very good team boo xam ne daf ñu war a ah, daf ñoo gën a boost parce que baa ngi ñëw ñu ngi def test. Ah, test game so the most important thing still now la war a am. because mm-hmm. nine point is not even safe. ca ba ca ba ñun ñun ñun ama Angola fii. waaw ñun uh,

amante so loolu mooy di most important thing right now it's a very good thing current ñoo nekk force loo xam ne dafa jege am ba August ñu play August August bi si indi August la ñu beneen game so ñu mën a am maxi soo amee maximum six points boobu mooy we will be the first team to qualify to African Cup of Nations for the first time in our history dina ne <laughs> mun naa nekk why not waaw uh, Gambia first time qualify <laughs> uh, African um, in Cameroon <laughs> Yaoundé ah because because Guinée-Bissau mm. Yeah. Cape Verde uput Gambia team. Mauritania right Mauritania uput Gambia team. Burundi uput Gambia team. ñoom waa ñoom Uganda ñoom Tanzania uppuñu team ñoom Namibia uppuñu team so it's it's it's our time. all right it's our time pour qualify it uh, li leen waxtu mi yoon uh, Rayi sa mujj na waaw mbay xanaa dama gars yi mbokk yi si rànkal ñëpp benn speak Saturday incha allah si dem eh, si dem si am same time same frequency Star TV. all right welcome. Uh, waaw keep on keep on keep on supporting naa ñoo xam ne ñu ngi toog si kër ñoom ñoo gën a mën a enjoy à show bi so ñu ngi wagaay ne ba next week incha allah di wagaay ne happy new year in advance. alright jërëjëf thank you very much ñu leen waxtu mi fii si Star TV Sport Bantaba comme ma ko far di waxee rek uh, nu ma ko ubbi woon rek uh, players su fi nekk uh, even suñu players sax képp nga xam ne rek ne sa loxo mat na sa gannaaw nibal soxla nañ ko foofu si biir lii di Ama Barrow one minute. Euh, a am benn liste euh, xam na premier last week. ko mhm. euh, xam nga léegi léegi Ibou la woon léegi dafa mhm. gaañu kenn la mhm. dëkk dafa gaañu soo dañ ko def tournament ko nekk waaye léegi xam suñu dëkk Pakaaw Ndiob taxaw na lii di final Pakaaw ak ñan keel Euh, Pakaw Diogo ak Kayer euh, taxaw nañ si final bi euh, loolu tamit nañ si def taxawaay yu baax a baax bu bés booba waaye comme fu ñu ko doon dogee rek mooy ne ndimbal soxla nañ ko foofu si biir lii di baara comme ma ko waxoon rek gisoon nañ ne tiis bi ñun ñëpp la laal du baara kese ndi ñun ñëpp benn njaboot bi lañ ba tax na nag ñuy ñaan lii di am ndimbal ku nga xam ne rek sa loxo jot na gannaaw am na kër yu nga xam ne soxla nañ ndimbal bu baax a baax ndi am na ñu nga xam ne maa ngi yëgu gaay si whatsapp bi ñu maa wane ne dañ soxla lii di ndimbal te tax na nag ñu ngi yëgu bu baax am na place xam ne already waxtaan na ak gars yi euh, ñoom nag jox nañ ma seen waaw ne ñoom dinañ dem dinañ dimbale euh, benn tey rek dinañ gën a pousse si players yi ndig ne ñu ngi fii jamono bi euh, dinañ try contact leen waxtaan ak ñoom ak ñi nga xam ne ñu ngi foofu sa bitim réew di play football ñooñu tamit dinañ leen contact pour gis nag ne am na lu nga xam ne rek dinañ ko jàppale lii di ama ndaw yi ak seen waajur yi fii si biir lii dama réew mi kon nag ñu jox leen dox daje ba next week incha allah from next week Euh, programme bi ñuy ñëw mooy euh, spécial ama visit euh, si Gambian place yu nga xam ne ñu ngi holiday fii si biir lii di ama réew mi kon nag gërëm Lamin Menga jàpp woon si caméra bi di head of caméra fii si biir lii di kër bi gërëm mister wax bu baax a baax nekk foofu sa contrôle ama room kon nag ñu jox leen dox daje benn next week incha allah bye bye